tay ji dañu ñëwoon jorbel euh, pour xol ci bâtiment bi nga xamne mom lañ doon tabax ñu koy wax espace numéro ouvert comme ni ngeen ko gissé liggéey bi paré na c'est-à-dire li nga xamne mom moom lañ dénkoon agence bi moy côté côté génie civil bi moy tabax bi pour équipement bi mom euh, ben structure bu nek ministère de l'enseignement supérieur moko yoré yore muy DEMSES té commencé nañ ko xamna né légui mu paré bu ngeen gisee aussi ñu ñëw fii le ministre de l' enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne dafa def benn annonce nee na ren yi nga xam ne dañoo am bac war a dem ci université yi dañ leen di yóbbu ci université yi mais duñ leen yóbbu ci privé yi looloo tax ñun ñi nga xam ne ñoo yor woon tabax yi ñuy wër tabax yi pare pour ñu mun fee orienter étudiants yi ENO bi nag normalement ci niñ ko tabaxee war naa mën a jël 500 étudiants wala du ko ëpp te loolu aussi bu ñu Bambey université Bambey bi nga xamné def nañ fa ben bâtiment bo xamné ne war na jël 1500 étudiants dina tax wa Bambey wa waa Diourbel yi région bi ñu mëna a tout ci lool ENO yi nag ni ngeen ko gisee du fi rek lañ tabax ENO parce que ENO yu bëri moom la ministère bi initié woon pour ñuy def enseignement à distance ñun nak euh, agence bi ko nañu ñent ENO Kolda ENO bi paré na ba son excellence le président de la république Macky Sall inauguré Durbel aussi gis ngeen pas pare donc ñaari eno nous des ci tabax yi muy à ak Tamba actuellement Yakarna a des travaux yi avancé na l'ol, lool te bu ci yàlla àndee léegi tey ñu def inauguration bi réception def comme nous avons fait